والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وخديمه وكل من والاه lii mooy téereb Sëriñ Tuubaa bi tudd Tazawudu Sigaar yóbbu lukk ndaw ñi yóbbu lu mooy ku nekk ci tukki la muy fàggalikoo boppam ci tukki ba moo tudd yóbbal sëñ bi dafa taalifal gone yi téere bi ngir ñu jàng ko te xam ko te jëfe ko muy seen yóbbal ba àjjana insha allahu taala dana ko firi nag ñu mag ñi aadama firi maanaam firi ko benn benn baat bu wax ba daanoo nga wëlbatiku nag ne wax ji nangam la ci jublu naan lañ ko firi ñi ko sëñ bi tërale nag mooy xaaj bu jëkk bi da ciy jàngale gëm ci lislaam lu ñuy gëmee xaaju ñaareel bi da ciy jàngale santaane yàlla yi ci kaw suuf muñ ko war a toppee bu ñetteel bi da ciy jàngale ñi nga xam ne moom lañu war a sellale suñ diggante suñ boroom lépp lu nuy wax ak lépp lu nuy jëf lu nuy def ak lu nuy bàyyi yàlla dong tax te sàmm ci teggin yi ci war suñ diggante suñu boroom loolu mooy xaaj ñetteel wi loolu nag des na ko tudde al iman al islam al ihsan des na ko tudde al tawxid al fiqh al tasawuf sëñ bi nag nee na adduna jaarukaay la boo xam ne ku fi jaar yett yi muy liimaan lislaam lihsaan sa soxokaay ëllëg mooy nekk àjjana ku fi jaare lu bokk ci yett yi nag su ko yàlla baaxewut këram ëllëg mooy nekk këru safaan ba bismillah téere bi nag ci la tàmbalee aawdu danaa muslu billahi ci yàlla mina shaytaani ci shaytaani arrajiimi kadikuñu jam kadikuñ jam mooy kañu rëbb dàq ko ci yërmande yàlla maanaam yàlla na ma yàlla musal ci saytaane mi nga xam ne yàlla da ko rëbb dàq ko ci yërmande te mu waat ni ñëpp daañu mel ne man ñàkk yërmande yàlla wa inni naka man waxi duha danaa muslu ko moom saa doom ji bi ko ci yàlla wa durriyataha ak i satam mina sheytaani ci sheytaani arrajiimi kadi ko ñu jam loolu bu ñuy jàng alquran noo ngi koy fekk ci suuratu ali imran dafa am jigéen ju baax ju toll woon diggante ni saroon nag bu amee doom doom jey góor mu yóbbu ko baytul maqdis muy jaamu yàlla kese te bañ a dugg ci yëfi àdduna ba mu ko juree nag muy jigéen te jigéen kenn daawu ko def noonu waaye rek mu rafet pas-pas ne suñ borom day jur naa ko muy jigéen tekki ne wa inni sammaytuha Maryam tuddi naa ko surgub yàlla mbindaanum yàlla tekki lii nag ne maa ngi ñaan moom Maryam mi day maa ngi ñaan yàlla musal ko ak képp ku setoo ci moom rek maa ngi ñaan yàlla musal leen ci seytaane mu bon mi yàlla nag nangu yéeneem jaag ni sëroon ja ba Maryam mi doon ñaanal lii kat moo jur yonante yàlla Iisaa alayhi salaam booy jàngal Qur'an sax suuratu Maryam ci njëlbeenu xaaju suuf ba dañ fay nett li Maryam mu doon ñaanal lii ba mu juree Isa alayhi salaam ak la ci xew loolu saar way nett li ci njëlbeen ga rabbi yow sama boroom ahondu danaa muslu bi ko ci yow min hamazaati shayaatini ci jax-jaxi saytaane ya wa ahondu te may muslu bi ko ci yow rabbi yow sama boroom ay yaxduruuni ñu teewal ma ci samay mbir loolu booy jàngal Qur'an yaa ngi koy fekk ci saar wi tàmbalee qad aflaxal muuminuuna yàlla ci boppam moo ne yonante bi waxal ne saa boroom de yàlla na ma musal ci yàq-yàqi saytaane mu iblis ak i gaayam ndax iblis ak i gaayam suñ boroom da leen a dooleel ci nit ba nga xam ne mën nañoo daw ci nit ñi deretam dawe ci moom te du ko yëg di ko génn ci su ko defee nag mu ne saa borom musul ma ci yàq-yàq saytaane musul ma sax saytaane ki gaayam bu ñu fekkee saay mbir ndax bu ñu fekkee dañu yàq rek yett yi nag ahoudu billahi min ashaytaani rajim muy benn ak wa inni uhiduha bi fis ci moom ak rabbi a'udhu bika ji ci mujj sëriñ bi ci mujj feeñam ci àdduna daanaka mbindam yëpp loolu la koy tàmbalee bismillahi ci tudd turu yàlla laay tàmbalee samay wax arrahmaani yàlla ki aji xéewal xéewal yu dijj yi arrahiimi yàlla ki aji xéewal xéewal yu sew yi maanaam maa ngi tàmbalee ci turu yàlla mi nga xam ne mooy xéewal xéewal yu dijj yi matali ñëpp ak xéewal yu sew yi jagoo ñenn ñi xéewal yu dijj yi dañu wax ne mooy yu àdduna yi nga xam ne da ko maasali ñëpp ba ñuy weddee ko mooy sax da leen di xéewal yu sew yi nag ñu jublu ci xéewal yi àllaaxira nga xam ne ñoom mayen gëm rek la koy jagleel tàmbalee tur yàlla nag lu mu fonk la lépp looy def te du mooy yàlla rek danga koy tàmbalee bismillahi nga xam ne booy lekk ak booy naan booy toog booy jóg booy dugg booy génn booy taal booy fay lépp rek wax bismillahi booy rendi nag boo ko fàttee wax des na ko lekk waaye boo ko teyee te waxoo bismillahi wax bi gën a wóor ci fiqhu Maalik ay yoonu Maalik wi ñu topp su boobaa kenn du ko lekk wasalla yal na dolli tedd nga allahu yàlla taala kawe na moom yàlla xalaa sayidina ci sunu sang wa mawlaana tey sunu kilifa muhammadin turam moo di muhammad wa ala alihi ak ci ñoom wa saxbihi ak ay saxaabaam wasallama te mu dolli leen wóolu wa baaraka te mu dolli leen barke loolu mooy julli ci yonent bi dana yal na yàlla dolli teraanga ak jàmm ak barke sunu sang sunu kilifa tudd muhammad ak mbokk mi ko gëmoon mooy ñoñam ak saxaabaam ya nag mooy képp ku tase woon ak moom rek te gëm ko te faatu ci gëm ga ñoom ñëpp yal na yàlla dolli leen teraanga ak jàmm ak barke salaatan dolli teral wa salaaman ak dolli wóolu wa barakatan ak dolli barke yaquudu yoo xam ne dana wommate bihaa ci ñoom kulla man képp koo xam ne xara a jàng na haadal kitaaba bi la téere ilal jannati jëme ajjana allati ji nga xam ne waayida digéef na ko almuttaqoona way ragal ña yàlla daa wax ne li mu ñaanal yonante bi muy teraanga ak jàmm ak barke yal na yàlla yaatal teraanga ji ak jàmm bi ak jàmm ja ak barke ba ba ëmbaale ca képp ku jàng téere bii wommat la ba dugal la ajjana ajjana ji nga xam ne moom la dig moom yàlla ña ko ragal ña ko ragal nag mooy ñu gëm ba noppi way ci jëfe ndigal bàyyi tere te yàlla rek tax ñooñu mooy ñu ragal yàlla te ñoom la yàlla dib ajana amin yàlla na nga nangu ñaan yaa rabbal alamina yow mi boroom mbindeef yi yàlla yow boroom mbindeef yi yàlla na nga nangu lii ma la ñaan ci bopp téere bi waaye nag moo tàmbalee ci yaquulu dana wax man ki nga xam ne laysa yazaalu mustadañ yaxmadu di sant maalikahoo boroomam alxabdu moo di jaamub yàlla ba alxadiimu kay liggéeykatu yonante ahmadu turam moo di ahmadu bàmba dina moom mi taalif da di koo xam ne fu mu toll mu ngi sant yàlla mosu caa jóg te du ci jóg mukk muy jaamub yàlla boo xam ne day liggéeyal yonante wi tudd nag ahmadu bàmba loolu mooy xamle boppam li mu wax dëgg-dëgg nag mooy alxamdu xeeti sant yëpp lillahi ajiyee la ñeel yàlla allati yàlla mi nga xam ne ahsana rafetal na lii jëm ci man wala lii ñeel ma ihsaana man rafetalu koo xam ne laysa yazaalu mustaden muhsinan di aji rafetal ina maa ngi tàmbalee ci sant yàlla mi nga xam ne xam naa ne ci ñëpp la baax waaye man maa ci raw ndax naka jekk damay defal lu baax te du ci jum mukk du xama bàyyi du ma defal lu baax rek ahmaduhu danaa ko sant moom yàlla wajaada te mbir moom tabe na bi tawxiid yi ci xam-xamu tawxiid wa axawarihi ak yaari mbokkam sunnatil wahiidi yadi sunnas aji wéet ja ne maa ngi dollee sant yàlla mi nga xam ne moonu baaxe luñ jullit ñi may lu ñetti xam-xam ñi nga xam ne mooy xam-xami diine benn bi mooy xam-xamu tawxiid moo ni mooy bi ñuy jàngal gëm ci lislaam mu ñu gëmee ñaari mbokk yi xam-xam yi des benn bi mooy fiq moo nuy jàngal santaane yàlla yi ci kaw suuf noonu koy toppee loolu moo tudd fiq wala sharia loo ci wax baax na wala lislaam loo ci wax baax na bu ñetteel bi nag moo tudd xam-xamu tasawuf moo nuy jàngal na nuy sellale suñ digganteel suñu boroom ba lépp lu ñuy def yàlla dong mu tax te sàmm ca teggin yi nga xam ne moo ci war lu ñuy bàyyi it noona yett yooyu nag nee na moo di yoonu yàlla moo di yoonu yonante bi te moo di aw yoonam te moom sëriñ bi te mooy sax ci gëm ak wéyi santaane yàlla ci kaw suuf te yàlla rek tax suma salaatu topp dolli teral wasalaamu ak dolli loolu sarma dana faru ala xalilihi yàlla na nekk ca xaritam ba alxabibi kadim soppe ahmada turam moo di ahmad wa alihi ak ñoñam maxa sihaabi ànd ak saxaaba ya al muminina ñu di way gëm al muslimina ñu di ay julit al kurama ñu di way tedd al muhsinina ñu di way rafetal nee na gannaaw sant yàlla maa ngi ñaan yàlla dolli teraangam jàmm xaritam soppeem tudd ahmad ahmad mooy yonante bi ahmad ak muhammad yëpp turam la ba tey mboolem ay mbokkum am yonante bi ak saxaabaam ya boole woon iman islam ihsan loolu jublu ci al muminin al muslimin al muhsinin ñoom ñëpp la nañ yàlla boole yonante bi teraanga jeeg jàmm ji bu faaw hëza jàppal lii hëza day teqale li mu weesu ci sant yàlla ak julli ci yonante bi ak li mu jëm wada bile téere nazamtuhu way naa ko muqaddamatan muy lu ñu jiital baa nga ne mbir mu muy lu ñu jiital urjoo satan tadi aw rajas naafiatan wadi aji jëriñ mukarramatan wadi wu ñu teral nee na téere bi dama ko taalif muy téere buñ mën a tàmbalee jëm kaw muqaddama la muy téere buñ mën a tàmbalee jëm kaw ma daaj ko daaju rajas nga way daa bari ay daaj waaye bii moom rajas la muy téere bu am njëriñ lool te téere bu tedd fa yàlla yonant bi dana wax sax ca mujj ay jagley téere bi sammaytuhu tudde naa ko tazawwud as-sigaari yóbbuluk ndaw ña ilaa jinaanillaahi jëm ci ajana yàlla ja bil anhaari ka di boroomi dex leen laa ko tudde yóbbuluk gone yu ndaw yi li ñu war a jàng xam ko jëfe ko ba ba ñu dem ci ajana yàlla ja ci coobare yàlla mooy téere bii yàlla nag moo def ci ajana joojee ay dex yu bare bare yu mu wuute ajjana ni ko alquran nettalee am na dexuk soow am na dexuk lem am na dexuk sàngara lu waay bëgg rek dal koy am dal koy am pasaasa wa asaludana ñaan allah yàlla rabbi koy sama boroom alqaboola nangu ga wal am na ak wóolu ga wa safa ak sell ga wa tabjila ak màggal ga neena maa ngi ñaan saa boroom nag mu nangul ma te may ma ak mucc may ma ak sell may ma ak màggal maanaam may ma màggal lépp lu mu bëgg ko màggal te moom itam mu màggal saa lépp moom yàlla wa kawna haadam nazmi ak nekku widéo yi xaa idan di aji wa mat kulla man képp koo xam ne talaa jàng na ko ila sabilihi jëme ko ci yoonam wa al aqwam yi ko gën a jub ena maa ngi ñaan yàlla téere bi mu def ko téere bi muy téere boo xam ne ku ko jàng dalay womat moom téere bi teg la ci yoonu yàlla wa gën a jub wa kaw naxoo ak nekkam saadata sibyaani di texe gone ya wa shiibi ak way bijaaw ya wa shubbaani ak waxambaane ya wa niswaani ak jigéen ña ne may ñaan téere bi yàlla def ko téere boo xam ne ñëpp ci amee texe gone mag waxambaane jigéen ñëpp rek haada lii nag awaamil insiraafi moo di waxtu walbatiku lil maraami jëm ca cakkuteef la nee na jot na nag ma jëm ci dëgg-dëgg taalif yi xanaa ma doon tàmbali di sant yàlla ka wax rek burum téere bi wa wajhu rabbi te jëmmi sama boroom mu xarab yi mooy sama xemmam téef bilan siraamin ci lu dul dog nee na jëmmi yàlla dong nag mooma ñor moom laa xemmam loo gis ma di ci yëngatu loo gis ma di ci wax xamal ne yàlla dong nga tax ba ci téere bi sax may taalif léeg-léeg nag kii kii kii firi day wax mu wuteeg ni téere bind ni ki bu ne bilan siraamin waaye yow mu jàng say ba bàyyi sa téere nam mel rek daa mu ko waral moo tax